alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa ala wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu di fas yéene àndaat ak yéen rek yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuququl iman moo ci ànd ak ci diiru weeru koor gi li ñu ko waxe woon démb tey di ñaareelu fan bi ñu fas yéene ci dalal commandant atu Seck bu sapeur pompier mu fas yéene dikk ak ñun ci tomb bu am solo te mooy wa man ahyaaha fa kaannama ahya an-naasa jami'an mooy xet li bakkanu doomu aadama war war naa soxal ñëpp naka ñuy xeetlee bakkanu doomu aadama ci bu nekkee ci jafe-jafe lan lañ ko njëkk a defal tomb yu am solo yooyu noonu incha allah ci la commandant Atou Seck si yéen ànd ak ñun tey andil ñu ci ay leeral xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom Euh, mu tàmbulee am njàngam ci ni nga xamante ne foofu lañuy ñuy rek ba am ay diplôme ci wàll gi nga xamante ne moom la yëngatu ci atum 1986 ci la dugg ci armée bu sapeur am tamit mbooleem diplôme yi nga xamante ne warees na ko am ci wàll googu noonu ci bi mu tàmbalee ba ni mu nekkee accident majeur bépp diplôme boo xamante ne war na ko am ci diggante bi rek am na ko kon moom mi ngi jaar mi ngi njëkk a jaar ci camp bi nekk Géejawaay jaar tamit ci camp bi nga xamante ne moo nekk Malick Sy jóge fa jaar ci camp bi nekk Diourbel jóge fa tamit jaar ci camp bi nekk Ndar bi mu jógee Ndar tamit jaar na Kolda jaar na tamit Sédhiou mujjee ci Cap Skirring ginnaaw bi nag lañ ko maanaam la nekk commandant nekk koo xamante ne dafa jiite département bu Oussouye loolu mi ngi am ci atum 2011 ba 2014 kon 2011 ba 2014 moom moo nekk commandant ci département bu euh, mille 2014 ba 2017 ñu yóbbu ko Sédhiou mu jiite région bu Sédhiou 2017 ba ñu indiwaat ko fii ci ndakaaru mu jiite département bu Pikine 2019 nag euh, ñu indi ko euh, Nioro ginnaaw nag ci 2021 bi nag lañ ko indi fii ci Darou Mouhty mu nekk commandant fii ci sapeur pompier bii nga xamante ne moo fi nekk waaye nag ci biir liggéey boobu noonu moo am muy continuer am njàngam ba am ay spécialité yoo xamante ne moom Euh, maanaam spécialisé wu na ci mu bokk ci loolu euh, maanaam feu li ñuy wax feu industriel mooy bu lakk amee ci ab usine wala kër gu mag foofu moom moom bokk na ci ñi nga xamante ne am na euh, spécialisé wu na ci naka la ñuy def ba mën a fay lakk googu noonu ba mën a gàllankoor loolu noonu ba tey tamit ci biir loolu ci am njàngam jàng na tamit ba am diplôme boo xamante ne may na ko mu mën a former ñi nga xamante ne ñooy wàll yëngu ci ci wàllu secours ni nga xamante ne noonu la inspecteurs yi di former enseignants yi moom tamit ci wàll yi nga xamante ne moom lay yëngutu am na diplôme boo xamante ne may na ko mu mën a former ñi nga xamante ne ay ay ay secours ay secours lañ ba tey tamit ci loolu am na beneen diplôme boo xamante ne tamit euh, moom am na ko mu jëm ci wàllu prévention muy naka la ñuy fagaroo naka la ñuy faggoo ba euh, musiba du ñëw ci yenn euh, mbir yi kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu dalal fi jataay bi tey mu fa yéene ànd ak ci ànd ak ñun ci euh, tomb bi ma wax léegi muy xeet li bakkanu doomu aadama war naa soxal ñëpp kon loolu incha allah naka la ñuy xettalee bakkanu doomu aadama boo xamante ne mi ngi ci dansé ak laka lan lañ ko war a njëkk defal kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey euh, andil ñu ci ay leeral xam naa ne ñu defal ñaanal ko tawfiix yal na ko yàlla defal tawfiix defal ñu ko maa bu fekkente ne waxtu bi may nañu ko rek bu noppee ci waxtaan wi euh, bu fekkente ne am nay laaj yoo xamante ne aju na ci li muy waxtaan rek incha allah dana tontu ci laaj yooyu kon li ñuy def rek mooy dañ koy jox kàddu gi. yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu eh, di maa ngi nuyu yéen ñëpp bu nekk si tur ak sant mais si nuyoo bi maa ngi jiital xalif bu daaru musi bu sëriñ basiru antañaam antañaam Mbàkke di nuyu itam di gërëm aussi commission bi waa Al Wafa ñi nga xam ne ñoom ñoo ma jox occasion tey ma ñëw fii pour euh, pour waxtaan ak yéen donc di nuyu itam ñi nga xam ne yëpp ñoo déplacé wu bàyyi seen temps ñëw fii pour pour déglu ma donc maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn su ma nuyoo xalif bi rek mën naa ni nuyu naa nuyu naa ñëpp euh, di ñaan yàlla yàlla may ñu kàttan ba lépp lu nga xam ni wax nañ ko fi mu mu mu mu amal njariñ te li wax nag génn yeeg jaween yi nag ñoom nanu bu leen koor gi jàpp nag ba ñu nekk fii di di nelaw ak yooyu am na ñoo si seen di xàmmee leen donc ñooñu moom amul nelaw amul dara parce que bu leen nelawee foofu laa leen di fekk ma yee leen loolu moo tax mu indi sàppar bële mu toog fële génn bu ma gis wala jaween bu ma nelaw dinaa ko dinaa dinaa wax ñu yee ko incha allah donc bu nu commencé pour commencer nag comme thème bi ni ma ko ni ko bi waxee mooy xettali doomu aadama war a nekk wareefu doomu aadama yëpp loolu ñun bu ñu ko joxee sapeur pompier day nekk lu nga xam ne vraiment day nekk lu gën lu lu lu lu neex ndax sapeur pompier boo gis muy dox war bu demee intervention ñaari mbir moo ko tax muy dem intervention soit day dem pour sauver doomu aadama wala pour day dem pour aar alalu doomu aadama sapeur pompier boo leen gisee ñun sapeur pompier kat intervention la lu jëm. soit di dem pour sowe ji doomu aadama mu bañ ñàkk bakkanam wala kat fexe ba alal doomu aadama bi bañ bañ yàqu muy lakk yooyu si loolu la ñuy dox am na leneen nag li ñuy doxaale mooy comme prévention lakk mën na am dara mën na bañ am ñu ñëw marché bi wala ñëw fekkale sa cantine xelal la ni la kat nii nga war doxale ndax jëye bañ am ndax bu nu sañoon jëye du am bu nu sañoon sapeur pompier du am liggéey ndax liggéeyam bu xëyee liggéey rek c'est parce que doomu aadama bi doomu aadama loru na kon pour éviter ñu bañ euh, déraper ci thème bi thème bi tey li ko tax jóg mooy nan lay fexe ba suwe doomu aadama bu nekkee ci ay jafe-jafe léegi nag bala may entamer dugg ci sujet bu sujet bi damay def euh, benn historique bu ndaw ndax euh, expérience bi état yi am ci deuxième guerre mondiale bu ñu waxee guerre rek xam ne ni day day bari blessé day bari ñu dee deuxième guerre mondiale ñëpp xam ne ni bari woon na blessé bari woon na guerre bi ñu si jógee état yi ñoo ne ah attention kon léegi war nañ di former ay secouristes yu bare yoo xam ni daanu man di soy doomu aadama yi te léegi du ñu constaté du ñu constaté ni du ñu constaté ni euh, développement bi dafa tax risques yi yokk. risque accident yi accident yi dafa yokku bu accident yi risque accident yi yokkoo risque accident domestique yi yokku bu risque accident yokkoo itam accident de travail yi yokku na risque naturel yi technologie yi yokk na ma continue comme ni leen nga waxee actuellement nii ci historique bi toujours du ñu constaté que nii développement bi dëkk bi àddina bi développé dafa yokk accident yi léegi accident yi dafa bare te façon accident bu dee ngay gis li ko indi mooy oto yi lu bare accident de travail yi dafa bare accident domestique yi dafa bare ndax sa kër léegi kër goo dugg am na bouteille gaz bu fa nekk moom lay togge am nga climatiseur am nga cuisinière am nga leneen loolu moo tax accident domestique yi bare ensuite accident naturel yi dafa bare comme par exemple dënu foudre taw nawet bu ñëwee euh, dënu yi su wàccee dënu ñëpp xam ne ne buy wàcc day wàcc ak décharge électrique buy wàcc bu bu dalee si kër day taal kër ga bu dalee si kaw doomu aadama daf koy rey temps yi itam constaté ngeen ni acte terroriste yi dafa bare terroriste yi fu ñu defee attentat blessé yi day bare dee day dee day bare ensuite violence urbaine comme xale yi bi ñuy manifester xale yi bu ñuy manifester da ngay gis ci biir manifestation yi des fois mu am ñu ñàkk seen bakkan des fois mu am ñu blessé loolu lépp nag boo ko tënkee loolu moo tax léegi ñu ni léegi sécurité civile wartul nekk rek affaire sapeur pompier mais affaire ñëpp la normalement ñi ñi nekk fii ci jumaa ji ñëpp. bu si am 16 ans rek heure yi waroon a fekk ñu jàngal la les gestes de premier secours jumaa ji actuellement ni ñi fi nekk ñëpp nii képp ku nga xam ne am nga 16 ans normalement waroon na la jàngal na la initiation nan ngay prévenir risques yi ak bu jëyi amee ñu jàngale les gestes de premier secours bu jëyi amee noo koy defee ndax jëy yu bare su amee la tànk nga jël sa téléphone di woo sapeur pompier yi sapeur ba la ñu ñëw ak embouteillage bi bu dee Dakar waa ji te mu ñàkk ba kanam alors euh, ki nekk ci wetam nekkoon papam wala nekkoon yaayam wala nekkoon gardien ci kër gi wala nekk jànq ci kër gi wala nekk kaneen moom ci boppam mënoon a def geste premier secours yi ba waa ji du ñàkk bakkanam ba bala sapeur pompier di ñëw. léegi nag secouriste bu ñuy wax secouriste bu ñuy wax secouriste lan mooy secouriste lan mooy secourir secourir mooy nga dem dimbali ku nekk ci danger secourir c'est aider quelqu'un à se tirer d'un danger pressant lan mooy danger lan mooy jafe-jafe jafe-jafe bi mooy euh, waa ji soit dafa am jafe-jafe wala jafe-jafe mi mi koy bëgg a dal kon bu ñuy wax secourir mooy nga dem wallu ku nekk ci jafe-jafe jafe-jafe boobu nag mën na nekk ci waa ji directement mu fekk mu tëdd mënul boppam dara walla jafe-jafe bi boobu di ko waaj laal boo yéexee ñëw rek jafe-jafe bi dañ ko faagaagal loolu la ñuy wax danger maintenant secourisme bi pour mu dem sauver sauver ji day am trois objectifs mooy secouriste bi boo nekkee secouriste ñu woo la ni waa ji dafa am yaa am na ku ku am problème fële am na ku def accident fële wala am na ku lakk fële wala am na ku daanu si moto fële wala am na ku am malaise fële wala am na ku xam fële wala am na ku xam ne feebaram bi moo ko moo moo monté ba sonal ko secouriste bi buy dem day am trois objectifs premier objectif bi. mooy maintenir la victime en vie mooy bu ñëwee day fexe ba victime bi du ñàkk bakkanam loolu mooy nekk premier objectif bi fexe ba ki muy sooy kooku fexe ba du ñàkk bakkanam ma jox leen ci exemple waa ji bu fekkee du nga ko jam paaka wala mu accidenté deret ji di sotteeku sécurité bu egsee li mu jëkk def mooy fexe ba ba du ñàkk bakkanam nan ngay def ba du ñàkk bakkanam mooy nga arrêté deret bi ba du sotteekooti soo ko arrêté rek waa ji incha allah bu si yàlla àndee du ñàkk bakkanam loolu mooy premier objectif bi donc maintenir la victime en en vie deuxième objectif bi mooy éviter l'aggravation de l'état de la victime fexe ba ki ngay dem di koy sooyee nga fexe ba la nga ko fekke du gën a aggravé par exemple waa ji da nga ko fekk mu am fracture mooy tànk bee damm wala loxo bee damm fexeel ba na nga ko defal ay ay ay ay gestes yu nga xam du du gën a aggravé wu loolu daan ci dellu si par exemple waa ji bu amee fracture dinañ wax ni bala nga koy déplacer immobiliser ko ba pare nga doon koy déplacer à moins que mu nekk fu nga xam boo ko boo ko déplacé wul euh, beneen jéye mën na la fekk. waa ji waa ji bu demee nga ñëw rek dugal ko si oto noonu yóbbu ko hôpital soo aggravé nga état bi ndax fracture xëy na sax nekkul lu garaaw trop mais boo ko dugalee si oto noonu te immobilisé ko muy yëngatu noonu muy yuuxu ba bala muy egg hôpital waa ji euh, état bi day gën a aggravé loolu moo tax ñu ne deuxième objectif bi fexeel ba éviter l'aggravation de l'état de la victime mooy victime bi boo ko fekkee nan nga ko fekk ak li ko dal fexeel ba état bi du gën a aggravé bu wàññeekul kay du gën a aggravé yooyu nag pour man am dafa am noo ko war noo noo war doxalee ndax bul fàtt ni sécurité bi duñ ko formé entraîné ko ba mu mën def liggéey boobu duñu xëy suba rek ñëw nekk sécurité comme mil sapeur pompier par exemple sapeur pompier militaire la ndax mënoo xëy suba nekk sa sapeur pompier te dugg armée da ngay dem armée ba pare nekk militaire ba pare nga ne man bëgg naa nekk sapeur pompier nga ñëw spécialisé bu nekk sapeur pompier sapeur pompier boobu nekk secouriste wala yéen sax yéen mën na leen former ngeen nekk secouriste kooku ñu formé bu mu nekk secouriste dafa nekk doomu aadama baa xam ne duñ ko formé entraîné ko ba moom bu ñëwee quelle que soit la nature de la blessure moom dana xam nan lay def pour sauver doomu aadama bi ba ba ba du ba du ñàkk bakkanam ba état am du aggravé wu troisième objectif bi mooy faciliter son rétablissement yow fexeel ba defal ko lu nga xam ni waajo bu demee day gaaw wér ndax duñu wax ni la vie ou la mort une guérison rapide ou une longue hospitalisation une infirmité définitive ou bien une temporaire dépendront de la façon dont seront donnés les premiers soins mooy nit ki mu dund walla mu dee mu gaaw tani wala mu yéex a mu yàgg hôpital wala mu jóge fa am paralysé fawa mi ngi dépendre si ñi jëkk ñëw doon ko sowe kon quelque que soient les qualités de qualité de soins données à la victime victime foo ko mënti yóbbu hôpital bi nu mu gën a bu fekkee sa commencement ba la victime ne na n'a pas été bien prise en charge day feeñ fële ma jox leen si exemple waa ji par exemple bu amee accident wala mu yéeg si kaw daanu wala oto mbëkk ka mu am mu am trauma du rachis rachis mooy digg gannaaw gi xam nga digg gannaaw gi yax gi nekk foofu moom la ñuy wax colonne vertébrale si biir yax bi moelle épinière bi foofu la nekk digg gannaaw di ko commencé ci loos bi ba fii benn ya yax bi yax bi nekk ci gannaaw moom la colonne vertébrale dafa nekk genre ay ay ay ay lam. yu nu suuree tegale ko noonu loolu mooy colonne vertébrale si biir colonne vertébrale bi nag foofu la maam yàlla def moelle épinière bi ndax protéger ko protéger ko parce que bu du woon loolu bu ñu ko protéger woon kon du baax bu ñu ko protégé mais nag accident su amee waa ji euh, colonne vertébrale bi comme ay yax la su demee. mën na laal mooy moelle épinière bi n'est-ce bu laalee moelle épinière bi bu am na noo ko dul am na pour nga pour pour pour victime bi bañ paralysé dafa am noo ko war a transporter léegi nag ñun bu dee secouriste bu ñëwee am na moom du indaale rajo de du indaale scanner du indaale rajo du indaale scanner mais bu ñëwee dafa am li li tax mu ñaaw njort ni waa ji kat attention am na problème si si rachis bi yan lan moo ko mën wax tax mu ñaaw njort par exemple les circonstances de l'accident mooy accident bi nu mu amee waa bu nee dama jóge ci garab gi daanu nga ñaaw njort ni ku jóge si kaw daanu mën nga am sa fra mën nga am problème rachis waa ji bu nekkat sama digg gannaaw gi day metti nga ne ah attention kon kii mën na am problème mu rachis waa ji bu ne oto bi daf ma mbëkk si sama gannaaw sama digg gannaaw gi la ma la ma moto bi mbëkk wala la ma oto bi mbëkk te sama digg gannaaw gi di ngi metti nga ne ah attention kii mën na ko am mën na am problème rachis wala waa ji ni la man sama tànk bii kat soo ko dompee du mu yëg dara dafa dee nga ne ah attention lu tax tànk bi dee boo ko dompee du yëg dara kon mën na am problème rachis loolu la ñuy wax les circonstances de l'accident loolu su amee li gën mooy sapeur pompier bi ñëw yóbbu ko mooy secouriste bi daal tey du ma wax si sapeur mais secouriste bi laay wax secouriste bi ñëw yóbbu ko ndax secouriste bi jàngal nañ ko ni ka ku nga da nga ñaaw njort ni dafa am problème mu am noo ko war ñun bu dee si suñu ambulance yi dafa am matériel boo xam ne loolu rek moo ko tax jóg pour genre victime yooyu dafa am ñun koy yëkkatee dafa am ñu koy tëralee dafa am appareil yu ñu koy defal. pour que rachis bi ya colonne vertébrale bi dama bañ laal moelle épinière bi bu fekkee nag foofu accident bi su mu amee secours si nekk fi woon waa yi dëgg la dafa ñëw pour dimbali ko mu jël ko dugal si oto mu toog te waa ji ñun ñu ko doon yóbbu warul toog dafa war jub tëdd jaxaan te fi tëral dafa war nekk un plan dur dafa war dafa war nii comme ni dér bi dëgëre yow nga jël ko rek noonu rek ko si oto bi mu toog. kon waa ji bu demee hôpital soo yi nga ko de d'accord waaye soo moytul dana paralysé dana paralysé mais bu ko sapeur pompier yi jëloon kon yàlla man a def du para dana tamit te du paralysé loolu moo tax ñu naan la vie au la mort une guérison rapide ou une longue hospitalisation une infirmité définitive ou bien une indisponibilité temporaire dépendront de la façon dont seront donnés les points sains loolu mooy ñu wax ni daal victime ëllëgëm dafa dépendre si ñi koy jëkk ñëw pour sauver ko waxuñu nag ni boo nit ki bu rombee kii du ko yóbbu ndax des fois nga nekk situation baa xam ni sapeur-pompier yi nekku fa kenn nekku fa euh, donc waa ji foo ko mu dimbali waa ji pour yóbbu ko mais bu sapeur-pompier yi mënee ñëw lu bare moo gën ensuite bu leen fàtte aussi wax ni xam ni euh, romb ko romb nit ko accidenté wala romb blessé wala romb ku nga xam da nga ko war a sauver sauver woo ko le code pénal sénégalais da lay puni d'emprisonnement et d'amende le code pénal sénégalais puni d'emprisonnement et d'amende quiconque qui s'abstient volontairement à porter assistance à une victime en danger gaa yi léegi du ñu yàkkamti nga taal sa oto di dem Touba wala ngay dem Diourbel nga romb accident yoon daf la may nga taxaw waroo dem romb ko yoon daf la may nga taxaw pour nga dimbali bi pour nga sauver ko comme seen thème bi di wax da ko war a sauver forcément da nga bu fekkee da nga ko dem bu nu jàppee sa numéro jàpp la bu la booli porter plainte da ngay daanu léegi porter assistance boobu. yaa y façon deux façons de porter assistance soit directement soit intertement man bu fekkee yow secouriste nga man nga ko sooy mais bu fekkee doo secouriste taxawal nga woo sapeur pompier yi soo taxawee nga woo sapeur pompier yi sapeur pompier yi ñëw sooy nga ko ndax boo woon sapeur pompier yi kenn du ko sooy même waa ji bu labee lab nga gis ki mu lab doone man Thiès laa dëkk amul géej wala Touba laa dëkk amul géej wala Daaru Musi laa dëkk amul géej rek du ma mën a fi mënuma feeñ kon sama yoon nekku si maa ngi dem déedéet boo defee loolu eh, porté bu assistance waa ji lab na gis nga ko mu daanu mu lab taxawal nga woote sapeur pompier te sapeur pompier bu ñu ñëwee du ñu bëgg xam waa ji fan la labee autour bi mu labee ndax dex dafa yaatu géej dafa yaatu bu nu ñëwee kat nga ne leen ah man fii ma taxaw nii waa ji fee laa gis mu lab bu ñëwee nga fii ma taxaw nii man waa ji fii laa gis mu lab sapeur pompier bu ñëwee xool daanañ jëkk xool direction vent bi vent bu fekkee fii la jëm waa ji bu labee mënu jëm nii fii rek la mën jëm kon ak ta ak nga ne kat quinze heures la fi lab sapeur pompier egg si quinze heures trente daa nga xool trente minutes yooyu diggante bi fan la fan la victime bi war toll mais bu amul woon loolu ah waaye dafa lab fii nga yow faa yëg lab fii yow nga dem ba woto sapeur pompier nga fay plongé ba suba doo gis dara loolu moo tax ñu ni nit ki man nga ko wallu ci ñaari façon directement walla indirectement bu fekkee yow man nga ko am nga xam-xam pour wallu ko wallu ko soo amul xam-xam pour wallu ko la fekk nga taxaw woo sapeurs-pompiers yi sapeurs-pompiers yi ñëw wallu nga waaj ndax ndax sapeurs-pompiers bu ñu ñëwee rek ko wallu donc loolu la wax porter assistance donc nit ki dafa wa fu mu foo gisi nit ku nekk si ay bakkanam nar kii nit ki daf ko war daf ko daf ko daf ko war daf ko dafa war taxaw mu sowee ko su ko mënul sowee mu taxaw mu woo sapeurs-pompiers yi sapeurs-pompiers yi ñëw sowee ko Ensuite, secouriste bu ñëw di liggéey secouriste moom moo nekk premier maillon ndax pour sauver doomu aadama chaîne de secours la benn chaîne la ki jëkk fekk affaire bi témoin moom mooy premier maillon moom mooy premier maillon bi deuxième bi mooy sapeur-pompier bu ñu ñëwee sowee ko troisième maillon ba ñu dugal ko ci biir ambulance bi bu ñu ko dugalee ci ambulance bi foofu day am toujours benn infirmier bu nekk ci biir bu nga xam ne dañ ko mën defal benn euh, prise en charge préhospitalière après nag ñu door koy yóbbu ba ci loxo docteur bi docteur bi moom bu demee nag moom moom mooy def yëfu docteur loolu moo tax bu ñuy wax mayon yi di wax am na am na la sécurité am na l'alerte am na la réalisation des gestes de secours d'urgence par un témoin am na la mise en œuvre des gestes de secours en équipe am na la prise en charge médicale préhospitalière am na la prise en charge hospitalière mooy ki nga xam ni moom moo jëkk fekki accident bi li mu jëkk def mooy la sécurité walla la protection mooy mu fexe ba du amaat beneen accident foofu éviter le sur accident ndax accident su amee ka fa jëkk ki fekk bu fekkee daf la fekk nga nekk nga yore oto boo séenee accident bi rek da ngay ralentir nga taal sa feu de détresse boo ko séenee rek da ngay ralentir nga taal sa feu de détresse soo ko li gën mooy nga ñëw ba romb ak romb romb fi accident bi nekk nga romb ko après rek nga door droite loolu moo gën bu fekkee nag accident su fu mu nekk loolu mayu la ko itam yàqul dara mais li gën mooy boo ñëwee nga fekk accident bi li ngay jëkk def mooy ñëw nga romb accident soo ko rombee ba noppi nga droite soo droitee bu fekkee sa oto bi ngeen yoree dafa yore ay nit ci biir nga nga génne leen oto bi ñu nekk ci gannaaw glissière de sécurité yi parce que boo xoolee autorité à péage bi am na ay ay ay ay ay barrage mooy mooy barrage yooyu def ci côté yi pour oto yi suñ si dalee bañ bañ wadd du dëgg oto oto yi day ñëw ba romb romb accident bi mu droité mu droité carrément ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir oto yi nga yóbbu leen si gannaaw glissière de sécurité yi après yow lan ngay def nga protéger accident bi mooy nga teg des triangle de présignalisation boo xoolee seen oto yi am na triangle bi mooy triangle de présignalisation bi moom ngay teg en amont en naval mooy si kanam ak si gannaaw mais nag à cent cinquante mètres accident bi bu nekkee nii da ngay dox lu mat cent cinquante mètres nga teg fi benn triangle nga doxaat fi kanam à cent cinquante mètres nga teg fi benn triangle boo ko ñu nga koy teg si woto bi boo ko teg si oto bi amul njariñ lan mooy njariñu triangle yooyu njariñam mooy oto bi ñëw te yëgul ne accident am na bu séenee lii dañ ah attention fii accident am na mu ralentir wala mu taxaw bu fekkee amoo triangle yi mën nga jël ñaari nit kenn ki dem ba à cent cinquante mu taxaw keneen ki dem ba à cent cinquante mètres ci kanam mu taxaw mu yore yër bu weex morso bu weex wala morso bu xonq oto buy ñëw mu def nii oto bi bu séenee dañ ne ah kon fii am na lu fi xew bu fekkee guddi la man nga boo amul triangle de présignalisation yi mën nga jël ñaari nit kenn ki taxaw à cent cinquante mètres kenn ki taxaw à cent cinquante mètres yore torche oto bu ñëw même léegi portable yi am na torche oto bu ñëw mu def nii oto bi bu séenee to lumière bi dana ah attention fii xam am na lu fi xew xam ngeen loolu lan lañ ci jublu duñ ci jublu muy invité sur accident boo ko deful yow da dugg ci biir di soye waa ji oto fekk la fële boole leen yéen ñëpp rey te bari nag loolu boo gisee ñu koy def dangay ngay ki ngay soye dangay ngay yow sa boppam da ngay protéger ñi toog ñi taxaw di seetaan ñett yu ñëpp ngay protéger. loolu boo ko defee rek porté nga ñetti ñetti ñetti façon doomu aadama ki tëdd ñu koy sowee protégé nga ko ki ñëw di sowee protégé nga ko ñi taxaw di seetaan protégé ngeen leen boo ko deful oto bi benn oto mooy jóge fal moom du xam lu xew yow yaa ngi ci biir oto bi pour sowee doomu aadama bi moom mu ñëw bu dalee seen kaw day faat waa ji nga bëggoon sowee faat ki doon ki doon sowee même seetaan sax suñu moytuwul sax oto boobu déraper faat faat faat leen moo tax bala ngay soy loolu ngay jëkk def la protection est une action indispensable et préalable à action de secours bala ngay def dara dara dara dara dara foog nga def loolu ba pare soo defee loolu ba pare nag ba xam ne léegi amatul risque sur accident nga door a dem pour soy doomu aadama accident électrique en cas d' waa ji nga xam ne kat courant bi dafa jàpp xam nga léegi day am ndax léegi courant bi dafa bari léegi macha allah ku ko amul itam yaa ngi demandé pour am ko ndax dafa bokk léegi ci dundu doomu aadama mais comme que nag li mu doon wax sànq si développement développement boo gis fokk moom ay risque suñu maam yi njëkk yi amoon courant courant daaw leen jàpp de. yaakaar naa mais léegi nag comme que courant am d'accord ci dund bi la bokk waaye itam dafa ay danger donc doomu aadama bi courant bi mën naka ko jàpp fu muy liggéey courant bi mën naka jàpp si këram courant bi mën na jàpp sa marché ba courant bi mën na ko jàpp si mbedd bi muy dox fekk fil bu daanu gusu ko mu taxaw ci fil bi courant bi jàpp ko bu fekkee nag sa course bi da nga ñëw ñu la kat waa ji courant moo ko jàpp dafa am ñaari façon courant moo am dafa am courant domestique ak courant haute bu dee courant domestique la mooy courant yi nga xam ne si kër yi la nekk foofu su boobaa bala ngay laal victime bi da ngay ñëw nga couper disjoncteur bi soo couper disjoncteur bi ba pare si ngay door ñëw laal waa yi parce que boo ko deful soo ñëwee di nga courant boobu ko jàpp daf lay jàpp donc nit ki fokk mu ànd ak sagum foofu laaj ci waa ji lan moo ko dal lan la ñu ne waa ji courant bi ko jàpp li nga war dëkk def mooy dem fu disjoncteur bi nekk ñu ne disjoncteur baa nga dale nga couper disjoncteur bi bu fekkee nag courant haute tension la courant haute tension moom secouriste mënu ci dara li mu def mooy day woo Senelec waa Senelec couper courant mu door mu door a laal victime bi waaye nag boo ñëwee doo croiser les bras de soo wootee Senelec pour ñu couper courant ba pare da ngay def périmètre de sécurité mooy da ngay fexe ba li wër victime bi yëpp li wër fi nga xam ne fa la danger bi am yëpp nga fexe ba nit ñi di ñëw du nu egsi ci courant bi ndax boo ko deful boo toog di seetaan noonu naan ah woo na Senelec ñu xaar Senelec kenn moo jóge fële moom yoonam nekku si xamul sax li xew moom mi ngi dem doxi soxla muy téléphone mooy dox dox dox ba dal si kaw fiil bi courant bi jàpp ko waajuru xale bi bu ñëw ñu ne que sa doom mi ngi nee courant bi ko jàpp moom li mu jàngoon lépp da koy fàtte xelam yépp mooy daw dem jël jël jël jël jël jël doomam lay xool mais su boobaa du leen ko bàyyi mu dem ndax da ngeen koy téye ne que boo demee courant bi nu mu def kële noonu lay def noonu lay def kon yow dangay def périmètre de sécurité après nga woo Senelec xaar ba Senelec ñëw Senelec bu coupé courant pare ngeen door ñëw génnee jël sauvé waa ji ndax sauvé itam da foo nga xalaat am na foo xam ne da ngay ñëw sauvé léegi am na foo xam ne bala ngay sauvé foo nga xaar ba danger bi dañ nga door koy man sauvé bu dul loolu boo fa demee yow yaay nekk deuxième victime walla nga yore sa oto di daw ba yàgg rek par accidentellement nga ñëw gaare si benn fil bu am courant yéen yére yu sa oto bi kat mais sentir ngeen ne kat actuellement nii bi jàpp oto bi courant su boobaa dañuy wax ne yéen bu leen génn oto bi bu leen génn oto bi ndax courant bi laal na oto bi mais egseegul si yéen ndax yéen a ngi toog si ay yi fauteuil yooyu courant bi mënu fa egsi mais sant ba ngeen gaaree. sentir ngeen ni kat oto bi actuellement nii mi ngi taxaw si comme benn fil de courant te oto bi am na courant fi ngeen toog courant bi laalu leen bu leen bouger toog leen ngeen woote ñu ñëw bu ñu ñëwee gars yi coupé courant bi ngeen door a génn yooyu itam ay cas la nga xam ne dafa mën na mën na di arrivé en cas de fuite de gaz avérée ou suspectée par exemple nga dugg si benn néeg. jékki-jékki si kër gi ñu naan ah kër gi mu ngi xeeñ de waañ bi mi ngi xeeñ gaz gaz bi mi ngi xeeñ gaz baa ngi xeeñ gaz buy xeeñ moo gën a dangereux fuuf bouteille gaz mi ngi tàkk ndax bouteille gaz buy tàkk buy takk ci suuf ak takk si côté yeeg tàkk yi xam bu fekkee soxna si foofu di togg bu gaz bi commencé takk si suuf rek sànni na lépp daw ni eh gaz baa ngi tàkk mais gaz bi tànk mi ngi tàkk du exploser ma nga mel ne kuy attaaya rek yokk sa gaz d'accord fi mu waroon tàkke romb na ko ndax ñëpp xam ne ne ba gaz ci beg bi la war tàkke waaye des fa mu tàkk si beg bi tàkk ci côté yi tàkk yépp commencé tàkk xam ne loolu normal la dafa am fuite quelque part mais buy tàkk ànd la sa sang froid parce que foofu am amul problème parce que du exploser gaz bi day gaaw jeex rek mais du exploser bul affolé jëlal mbàjj walla nga jël saako pomme yooyu nga tooyal ko bu mu tooy nga ñëw nga këpp ko si boo ko si këppee rek mu fay su fayee nga nga nga nga tëj bég bi wala nga jël gaz bi nga génne ko si biti bu fekkee nag duñ ne nag gaz bi day xeeñ foofu la danger bi nekk. à tout moment explosion mën na am à tout moment explosion mën na am te explosion kenn mënu ko prévenir pourquoi parce que ces effets sont instantanés néeg bu explosion buy am si néeg néeg béppay tàkk ndoo en même nekk ndoo tàkk ndoo en même temps les gaz bu ñu waxee ne a ah néeg bi kat mi xeeñ gaz wala wàññi mi ngi xeeñ gaz boo ñëw li nga war def mooy d'abord lampe bi bu ko taal boo taalee lampe bi rek xam nga lampe toujours boo koy taal day am étincelle contact bi noonu boo def nii di taal lampe ak di fay toujours boo xoolee day am étincelle boo taalee lampe bi rek bu fekkee ga néeg bi dafa fees dafa bari woon gaz rek day exploser bu fa dem itam di taal portable li nga war def mooy boo ñëwee ibbil bunt bi ibbi fenêtre yi mu aéré. da ngay aéré ibbi bunt bi nànk ibbi fenêtre bi nànk bu fekkee gis nga ni gaz bi mi ngi foofu mooy peer nga dugg ci biir jël gaz bi génnee ko ci digg kër gi digg kër gi moom lu mu peer peer peer explosion mën fa am ndax ngelaw li bari na na ngeen xam ne daal néeg buy xeeñ gaz moo gën a dangereux ñu ni gaz bi mi ngi tàkk parce que gaz bi tànk mi ngi tàkk mënul exploser ma nga mel ni kuy attaaya tànk yaa ngi ko la ngay togg gaz baa ngi takk explosion amu fa gaz bi da ngay da ngay jékki ñu la ah gaz bi jeex na de nga jël dem sànni ji buy tàkk noonu itam xamal ni norm dafa am ay fu faneen fuy génn gaz te normalul loolu moo tax mu jël mu muy tàkk su da ànd ak cent franc rek wut benn mbàjj wala benn saako pom de terre wala yooyu nga lu diis daal nga tooyal ko mu tooy boo nekk ci këpp rek def ko nii rek da day fay su fayee nga jël bouteille gaz bi génne ko ci digg kër gi en présence d'une victime dont les vêtements sont en feu xam nga nit ki li mu ko doon wax nii nit ki mën na nekk ci liggéeyukaayam usine bi di liggéey mu am accident de mu jékki-jékki yëre yi commence tàkk walla nit ki nekk ci waañ bi di togg ba yàgg rek yëre bi commencé takk walla nit ki këram di lakk këram di lakk ku sa kër de lakk doo toog nii rek di toog di seetaan même boo woowee sapeur pompier yi di nga jël siwo yi ndox yi di di fay wala sapeur pompier di ñëw si biir loolu si yëre mën a takk bu leen fekkee doomu aadama bu nga xani dafa def accident dafa dafa jekki-jekki rek yëre bi commencé tàkk waa ji nga xam ne yërëm day yërëm day tàkk moom day paniqué moom li mu njëkk xalaat mooy daw ñi mu arrivé yëpp day daw te daw boobu baaxu si ndax buy daw ngelaw li day gën a yokk takk-takk bi yow su boobaa bu fekkee doomu aadama bu nga xam ne kat yi day takk buy daw da ngay fexe nga daaneel ko li ngay jëkk a def mooy daaneel ko bul bàyyi mu romb la ndax bu dee daw nga daw ba jot ko nga pàdd ko mu daanu wala nga bëmax ko mu daanu en tout cas daal cas daaneel ko soo ko daanalee ba pare nga wut darab walla manteau nga lëmas ko ko di ko bërëng ci suuf ba ba mu fay su fayee nga jël ndox nag sotti ko ko refroidir ndax brûlure doo si def pâte dentifrice doo toj ñan di si def doo si def leneen waa ji bu lakkee li ngay jëkk def en tant que secouriste mooy da nga koy refroidir pendant cinq minutes ndoxum robinet bii ngay jël ndoxum robinet bii ngay jël nga ñëw di ko sotti fi fi fi lakk day tax mètre bi day wàññeeku day tax lakk-lakk bi du continuer mais boo ko bàyyee noonu lakk-lakk bi day continuer si biir et puis day metti kon li nga war jëkk def yow en tant que secouriste kat dama ñëw fekk mu lakk dafa lakk des fois eh indil pat dant bi foofu waay nga ñëw ñu jël pat bépp diw ko si toj leen nen yi nen yi nekkoon foofu ñu géer yi jaween yi war a ndogo yëpp ñu toj ko ñëw bomb ko si si lakk bi déedéet loolu loolu lépp jaru ko ngay jël mais ndoxum robinet bi nag waxuñu la ndox bi nekk si frigo bi parce que nit ñi bu see mu tàkk lakka-lakkale rek li ñu jëkk xalaat na a ah, jëlee ndox mu sedd mi déedéet ndoxum robinet bi baax na ndoxum robinet bi ngay jël nga sotti ko ci palaasu lakk-lakk bi ba mu mat cinq minutes après nag léegi nga jël benn sér bu set nga emballé ci après nga jël ko nga yóbbu ko hôpital en tout cas na ngeen xam ne daal nit ku nga xani parce que lakk euh, dafa yëreem day lakk bu leen ko ba moom li muy jëkk xalaat moom day daw moom day daw loolu moom mooy jëkk réaction mais yéen ñi nga xam ne yéen a koy wallu gi yéen dàq fexe leen ba dàq ko ba jot ko daaneel ko mooy première réaction bi daaneel soo ko daanee bu noppi nag nga wut dara wala yooyu nga muur ko ko bërënk suuf si nga gis kii bi fay après nga jël jël ndox comme li leen wax lii ndox refroidir ko pendant cinq minutes après ngeen yóbbu ko à l'hôpital daaneel wax itam dégagement d'urgence dégagement d'urgence tey jii bu accident amee si comme ni ma leen ko waxee sànq rek secouriste bu buñ la woowee ni la kaay ak kii am na problème kat pour nga ñëw nga wallu ko toujours dafa am noo ko war a walloo bu fekkee waa ji oto daf ko fiir mu tëdd ci autorité à péage bi autorité est-ce que nit mën na ñëw toog foofu di fi doomu aadama mën na nekk wala mënu nekk autorité à bu fekkee oto dafa fiir doomu aadama mu tëdd ci autoroute bi est-ce que xel nangu na secours si ñëw toog foofu naan dama koy sooy déedéet man di nga ñëw pour sooyee mais doo ko sooyee foofu da koy jële foofu mu nekk nga génne ko autoroute bi nga door a koy sooyee bu fekkee waa ji dafa nekkoon ci benn immeuble immeuble bi daanu benn partie daanu na waaye moom blessé nañ ko euh, li daanu blessé na ko waaye nekkul ci fi daanu mu ngi tëdd fi beneen côté mais côté bi mi ngi waaj daanu ñu woo la ni la am na benn bâtiment bu daanu fële kat am na blessé bu fa nekk nga ñëw nga xool blessé bi fu mu tëdd nga xool kat ni li des ci bâtiment bi kat bu yàggul tuuti dana daanu su boobaa waa ji doo ñëw foofu doo ko mënoo ko sooyee foofu da koy déplacer foofu nga door koy sooyee bu fekkee waa ji dafa nekk ci benn kër guy lakk paa bu màggat la wala meer bu màggat la wala xale la wala ku feebar la kër gaa ngi lakk. waaye moom fi mu nekk mënu fa jële boppam su boobaa da nga ñëw nga jële ko fa par dégagement d'urgence soo gisee ñu loolu am nag mooy bu loolu amul victime wuroo ñëw di ko déplacer fa mu nekk fa nga ko war sowee kon leelu cas exception ne la victime boo ñëwee nekk di sowe doomu aadama fa nga ko fekk mu tëdd sowe ko foofu bu ko déplacer ndax déplacement bi dañ koy gën a sonal te day yokk day gën a aggravé waaye nag day am cas yu nga xam fokk nga déplacé ko mooy dégagement d'urgence ndax boo ko deful foofu bu fekkee autorité à péage waaye kat oto bi fiir na dem nga ñëw ni dama koy soye foofu oto moo lay fekk foofu yéen ñaar ñëpp rey leen ndax ñëpp xam ne ne auto à péage yow sécurité mun na ko contrôler bu dee route Daaru Muxti bii mën naa ko mën naa barrer circulation bi ne gars yi taxaw leen fa waaye barrer leen oto yi waay mais autoroute à péage mënoo ko bu dee immeuble bu bëgg effondré wu xamoo kañ lay daanu boo fa nekkee foofu di sowe waa ji boo nekkee foofu di ko sowe immeuble mën a daalu si kaw rey leen yéen ñaar ñëpp kon da koy déplacer nga door a koy sowe kër guy lakk ba néeg yaa ngi lakk am na kenn ku nekk si beneen néeg bi soo ko bàyyee lakk bi daf koy fekk foofu da nga koy xëcc da nga da nga koy ñëw génne ko léegi nag euh, jéeju kaay jéeju tëdd ma war leen na lañ defee dégagement d'urgence cas yu mel nii su amee waajikat bu fekkee si autorité à péage nekk exemple autorité à péage foofu le danger n'est pas contrôlable mooy secouriste bi mënul empêcher oto yi ñuy daw foofu mënu ko ba noppi la danger est vital réel et immédiat mooy boo ko bàyyee foofu oto yi daan jaar ci kawam rey ko te boo gaawul loo yéex yéex loo gaaw gaaw soo moytul oto yi fekk foofu kon yooyu condition yooyu fokk mu am ndax pour nga mën def dégagement d'urgence il faut que le danger soit réel vital immédiat et non contrôlable pour nga door nga door a am droit def dégagement d'urgence loolu il faut mu leer dégagement d'urgence bu fekkee ku tëdd fii la ci pencu jàkk ji doo ko defal fokk waa ji fa mu nekk boo ko fa jëliwul bakkanam mën na rot ndax daa ndax la ko dal foofu mën na ko mën na ko rey loolu su amee da nga def def du d'urgence te yow secouriste bi mënoo ko sauvé foofu foog nga déplacé ko pour sauvé ko su boobaa nag dangay ñëw am na ay technique am na ko tey fii bala ngay bala ngay bala euh, ngay def technique bala ngay def dégagement bi da nga war xool ba pare nii man ban yoon laay jaar su may dem yoon bii laay jaar su may ñëw yoon bee laay jaar ba pare nga ne su ma eggee waa ji si tànk yi laa koy téye wala si loxo yi laa koy téye li ñuy bañ mooy nga ñëw ba foofu di xalaat naan ndax su ma jëlee waa ji fii laay jaar fii laay jaar la tànk ngay xaar oto bi ñëw na rey leen yéen ñaar wala nga ñëw ba fii di taxaw naan waa ji ndax ma jël ko si loxo wala ndax ma téye ko si tànk wala ndax ma téye ko si ëppal yi la tànk ngay xalaat loolu oto bi ñëw na rey la wala bâtiment bi nga doon kii ñëw daanu rey leen yéen daan ñëpp loolu moo tax da dangay xalaat ba pare ba pare door a dem ni ah waa ji kat kii kan la jéeju kii moom comme su may ñëw fii laay jaar te comme que su may ñëwaat fii laay jaar kon su ma ñëwee fii laa koy téye léegi nag ma ne xaaral ma ñëw léegi su ma ñëwee. amul nekk fii naan ko Masamba ma demba lu lu jot déedéet amul loolu yow xamu ko lu ko jot na fi jóge rek dangay ñëw rek nga ñëw nii def nii hmm? nga xëcc ko mu dem loolu moo tax bu leen gisee sapeur yi di sport chaque matin loolu yoon la parce que liggéey bi moo ko laaj du dëgg waaw walla nga ñëw nga choisir beneen technique bi exemple ni nga xëcc xëcc mu dem ba fu mu ba fu mu egg am danger wala nga ñëw bu ko bu ko circonstance yi laalee laajee nga ñëw nga tëye yére yi nga nga xëcc am na foo xam ni day laaj nga téye ko nii pour si géeg moom après nga xëcc ko du dëgg waa ji mën na nekk ci biir otoom mën nga jóg mën na nekk ci biir otoom daf accident àndatul ak sagoom mais fi mu defee accident boo ko bàyyee foofu ba neen sur accident mën na fa am da nga ko war defal dégagement d'urgence da ñëw ibbi buntu oto bi nga téye ko nga génn moom génn moom nga nga nga nga defal ko dégagement d'urgence bu fekkee da ko fekk mu ñëw mu toog ci biir otoom soo ñëwee mën nga ko defal foofu dégagement d'urgence dangay ñëw. nga ibbi buntu oto bi soo ibbee buntu oto bi nga dindi ceinture bi du dëgg soo jëlee ceinture bi nag après nag léegi nag nga ñëw fi nga ñëw dugg jël li comprendre après nga jël nga xëcc ko mu génn si biir oto bi nga koy fekk yëkkati ko génne génne génne ko yooyu yëpp dégagement d'urgence pourquoi parce que foofu mu nekk mënoo ko fa sowee ndax di yaa a un y a un risque de ak si de accident dégagement d'urgence euh, manœuvre exceptionnelle la qui ne doit être entrepris que devant un danger vital réel immédiat et non contrôlable lu tax parce que dafa dangereux pour une victime atteinte de traumatisme ki ngay xëcc tànk yi yow xamoo ndax tànk yi damm na wala damul te pourtant yaa ngi xëcc tànk yi xamu ko ko xamu ko lu ko jot waa ji xamugoo lu ko jot pourtant yaa ngi ñëw xëcc tànk yi ndax xamoo ne tànk yooyu ngay xëcc dafa damma ba def nga xëcc ko yaa ngi xëcc loxo yi est-ce que xam nga ndax loxo yooyu ngay xëcc loxo yooyu ñoo damma loolu moo tax ñu ne manœuvre bu garaaw la ndax bu fekkee victime bi am fracture da ngay gën a aggraver fracture bi waaye nag nga aggraver fracture bi moo gën nga bàyyi ko foofu mu mu dee loolu moo tax ñu ni la dégagement d'urgence est une manœuvre exceptionnelle qui ne doit être entreprise que devant un danger vital réel immédiat et non contrôlable pourquoi parce que c'est dangereux pour une victime atteinte de traumatisme léegi li def mooy l'alerte alerte buñ koy wax c'est l'action qui consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses ainsi que de la nature de l'assistance qui lui est prodiguée alerte bu ñu koy wax mooy nga fekk doomu aadama nekk ci ay tolof-tolof nga bëgg a woo sapeur pompier yi lu am njariñ la waxoon naa leen ko sànq ñi leen sowe doomu aadama mën nga ko sowe directement bu fekkee amoo xam-xam bi pour sowe ko directement da nga war a alerter sapeur yi ñu ñëw soowee ko alerte boobu nag dafa am nu ñu koy defee bu fekkee da ngay alerter li nga jëkk a def mooy da ngay joxe si tur dangay joxe si tur man kat maa ngi tudd Moussa Fall nga joxe sa numéro téléphone numéro téléphone boobu dafa am njariñ ñu bare bu ñuy alerte boo leen waxee sa numéro téléphone rek ñu commencé def hésiter ndax xam nga léegi problème yi àddina bi léegi dafa xaw tëridi waaye sapeur pompier moom bu la laajee numéro téléphone jox ko ndax xam nga lu tax par exemple nga nekk dakaar nga ne bon accident am na avenue Lamine Gueye sapeur ñëw ki dem xamul fan mooy avenue Lamine Gueye su réeree li mu def après day woot ne ah man kat maa ngi fii kat waaye gisuma accident bi su ko defee ñu woo waa ji woote woon ni ko ah yow sapeur pompier que dem na la ba fi nga waxoon waaye gisuñu fa accident bi ndax waa ji des fois buy woote moom si boppam mën na affolé ba jaawale adresse yi même ñun fii daf ñuy daaru musti fii daf ñuy dal des fois mën na ni kat ah, fu lakk am na tel mais comme que ñun gan lañ si dëkk bi des fois ñu réer nga génn ñun la boo rombee Senelec bi jëlal yoon bi nga romba Senelec rek jël beneen yoon léegi au lieu nga dem ci village bi nga dem ci beneen village mais bu ñu réeree dañuy woote ci camp bi ak suñu rajo yi ni ah ñun kat eh, dem nañu foofu mais gisuñu ko su ko defee waa ji nekk ci camp bi moom moo la woo waa ji woote woon ne ko yow ko sapeur pompier yi yaa woote woon léegi pour accident nga ne ko waaw mais waxaat ñu adresse bi mu gën a leer ndax sapeur pompier kat ñoo ngi tel emplacement waaye gisuñu accident bi. loolu mooy njariñu numéro téléphone bi kon da ngay joxe ci tur joxe sa numéro téléphone ensuite. nga nga wax la nature di problème mooy nga wax li xew ah waaju daanu ci teen la wala kat kër gi kat jaan moo fi nekk wala nga ni kat accident moo am walla nga ni kat lakk moo am boo waxee loolu ba noppi nga wax les les risques comme bu dee accident bu dee accident mën na nekk accident bu nga xam ne camion la ak benn minicar exemple waaye camion bi daanu na ba es gasoil bi mu ngi tuuru ci tëli bi kon soo waxee ni waa ji kat accident moo am eggal si ni kat minicar la ak camion ñoo daje waaye kat bu fekkee minicar bi dafa daanu gasoil bi tuuru walla walla euh, camion bi moo daanu gasoil bi tuuru da koy waxaale sapeur pompier yi ndax lakk mën na fa am dañ tax sapeur pompier yi bu ñu ñëw non seulement daanu indaale ambulance pour victime bi mais daanu sóoraale benn oto boo xam ne en bu lakk amee ñu fay ko ci saa si dama xam la comprendre ngeen baax wala déet ensuite nga wax l'adresse exacte surtout nag adresse bi dafa am njariñ sapeur pompier boo koy woo fi xeel ba wax adresse bi ñun fii tey jii comme que dëkk gan lañu si Darou Mousty yi du ñuy woo. ni des fois am na lakk bu am tel mais xam nga foofu foo nga laaj bu baax foo nga expliquer sapeur bi ni que soo génnee Daaru Musi da ngay dem yoonu Touba bi wala nga jël yoonu Kébémer bi wala nga jël yoonu Njaay Mbexe bi soo ñëwee ba romb tel angle jàddal nga dem li gën sax bu fekkee ma jot bi may na la ko sax si yoon bi soo mënee xaar pompier yi foofu sax nga xaar leen pour bu ñëwee nga war leen fi fi nu jëm moo tax booy woote da ngay wax adresse exacte bi mooy exactement fi affaire bi amee loolu ñuy wax adresse exacte loolu mooy tax secours yi gaaw egsi mais bu fekkee adresse bi nga joxe leerul sapeurs-pompiers di nekk di wër wër ba sonn door a ñëw perte de temps alors que tey boo leen joxoon adresse bu leer sapeurs-pompiers daañu day parce que ñi ngeen di waxal da ngeen xam ni ñooñu dëkkuñu Daaru si foofu ngeen foog ngeen xam loolu ñi ngeen di woo sapeurs-pompiers yi ngeen di woo ñoom dëkkuñu Daaru Muxti kii mi ngi dëkk Ndar kii mi ngi dëkk Touba kii mi ngi dëkk Kaolack kii mi ngi dëkk fële donc wan wax leen adresse bi wax leen yoon bi ñuy jaar pour mën a egsi même bu fekkee si dëkku dëkku dëkku dëkku dëkku bu sore la sax si village yi suñu manee fekkee am na yoon kenn génn taxaw si yoon bi bu sapeurs-pompiers ñee ñu arrêté leen continuer leen wala jaar leen nii wala jaar leen nii ensuite danga war joxe le nombre de victimes nombre de victimes da nga ko war joxe mooy kat bu accident amee nga gis ne kat am na fukki blessé wala fukki blessé ak juróom li gën mooy nga wax sapeur pompier yi ñu leen kat accident am na fii kat waaye am na fukki blessé ak juróom xam nga loolu ban njëriñ la am. day tax sapeur pompier bu ñuy ñëw du ñu indi benn ambulance ah xam ne ni kat fukki blessé mi nga leen di xaar foofu benn ambulance mën a daw gaaw jiitu mais ñu préparer yeneen oto ñu ñëw pour sauver yeneen victimes yi bu fekkee sax xamoon nombre de blessés yi mais boo nee mini car bu fees la wala bis bu fees la wala set places rek à peu près daanu xam à peu près ñaata victime moo fa nekk. ensuite boo mënee wax laa gravité mooy kat am na quinze blessés euh, cinq yi ñoo garaaw mais yeneen yi garaawul yooyu yëpp sapeurs-pompiers ba xam ko avant mu ñëw dana baax ak yow lan nga jot def nga ne ah man kat en attendant def naa def naa protection jël naa ñaari xale kenn ki taxaw na cent cinquante mètres keneen ki taxaw na cent cinquante mètres pour di bañ oto yu ñëw ñu signal leen ni fii dafa am accident après bala ngay raccroché nag waxal sapeur pompier bi ndax mën naa raccroché da nga koy laaj ndax mën naa raccroché ndax lu tax sa ki ngay wax accident bi moom wala ki ngay wax lakk bi moom am na renseignement yu mu la bëgg laaj xëy na te pareegul moo danaa ndax mën naa couper bu nee la mën nga couper nga door a couper mais waroo wax rek couper da ngay da ngay wax ba pare nga ne ndax mën naa couper mën la mën la couper nga door a loolu ñuy wax alerte alerte nag dafa am njariñ parce que moom mooy tax sapeur yi bu ñu ñëw man indi jëntukaay yu yi nga xam ni moom leen soxla te moom mooy tax itam sapeur yi mën a gaaw ñëw moo tax alerte lu am njariñ la lu am njariñ léegi lan lañu alerté léegi li gën a bare si li ñu alerté mooy téléphone ndax léegi téléphone am na bu njëkk ba portable yi amul woon da ngay dem sa euh, télécentre ba wala sa cabine téléphonique ba mais léegi macha allah koo gis muy dox am na portable mën nga jël si téléphone nga woote 18 boo defee 18 doo fay dara même boo amee crédit du lekk crédit bi même téléphone bu sa amul crédit di nga di dana dana wuyu actuellement nii Daaru Musi amagul 18 mais Sonatel samedi rek ñëw nañ fii pour monter ñu 18 ñoo ngi si pour monter ñu liñ ñu bari fii xam nañu numéro téléphone yu ñuy woote bu bu dara xewee mais boo defee du digit caserne de sapeur pompier bi gën a jege mooy wuyu su wuyoo nga ne ko ah accident am na fii wala lakk am na fii wala lii am na fii même bu fekkee nekkul caserne bu Daaru Musti bu fekkee Touba nga jot wala Kébémer nga jot wala Louga nga jot yow yaa ngi Daaru Musti wax leen ko rek ñoom boo leen ko waxee ñoom daan ñu woo wax ñu ko ñu dem boo amul téléphone mën nga yónnee taalal sa moto nga dem woo sapeur pompier yi taalal sa charrette nga dem woo sapeur pompier yi kon am na alerte par téléphone am na alerte verbalement boo amul téléphone mën nga yónnee nga dem ñu ñu dem leen wool ma sapeur pompier yi ñun fii des fois duñu toog camp ba yàgg rek benn waay dawal motoom egsi ni ah sapeur pompier am na accident bu am fii sapeur pompier am na accident bu am fii des fois itam ñu woote téléphone kon l'alerte da booy alerte da ngay présenté wu da ngay wax li xew da ngay wax risques yi fa xew da ngay joxe adresse exacte ba da ngay joxe nombre de victimes wax ndax victimes yi ñaata victime moo moo fa garaaw ak li li nga li nga jot a def te bala ngay raccrocher nga wax ni man kat ra man ndax mën naa raccrocher bu la waa ji nga door a te li ñuy wax li def léegi mooy obstruction brutale des voies aériennes. nit ki ñëpp xam ne nit ki lekk ak noyyi mooy dundal doomu aadama nit ki bu noyeetul day faatu te doomu aadama mën na toog léegi léegi léegi di géey su ñi sant géey ak ñi sant jaw toog di lekk léegi fot léegi suñu taxawul léegi ñu dee loolu de am de tegal nga ko léegi ci plateau yàpp muy lekk léegi comme que ñoom génn yeeg jaweri ñoom yàpp yu mag yi rek li ñu jël mu lekk yàpp yu fot ko su ko fattee bu fekkee dafa dafa option totale la waaye du mënt noyyi su mëntul noyyi bu toogee quelques minutes bakkanam day dem léegi nag nan koy walloo moom laa leen bëgg a wan léegi nii te su ma leen ko wanee sax di ngeen gis ni sunu maam yi daan na ñu ko def ñun daan na boo footee sa maam am na lu mu laan def affaire bi dañ les trois bi nag dafa ñëw nag gën ko rafetal rek léegi nag ngeen xaar ma wan leen ko pare nag dégg ngeen ay jugal <laughs> taxaw jugal taxaw ñoo ngi toog nii di waxtaan di ndogu mu jékki-jékki rek si ndoguwaay bi ñu gis benn waay bu nga xani jóg na commencé da nii lay def nii ŋaang mais si ngang bi du man wax du man def dara mais day def geste pour wane ni kat moom mi kat am na problème nga yow sa en tant que secouriste si bii yéen ku jàngoon loolu rek day jóg mu xam ne ah yow lan la kes ce qui va yaa da ngay da nga fot xanaa mais day ngang rek du man du wax su boobaa boo ñëwee nii ngay def mu taxaw boo taxawee yow nii nga war taxawee en tant que secouriste nga téye dënn bi boo téye dënn bi nga wàcc ko nii tuuti après nag nga jël sa pom de main bi nga dóor ko claque mais du vigoureuse lañu wax tubaab bi loolu la wax des claques rigoureuses mooy bu ko des claques vigoureuses mooy boo koy dóor bu ko yërëm da ngay dóor bu baax dóor bu baax trois bu mat cinq avant mu mat cinq bu fekkee efficace na da ngay gis affaire bi day waddal wala mu commencé sëqat nga xam ni affaire bi dañ ndax affaire bi su waddee boo gisee ma sëgal ko nii mën na wadde suuf que mën na dem si biir biir bi mais bu bu bu bu deñee rek rapidement nga gis waa ji day bàyyi loxo bi rek commencé di sëqat su boobaa li ngay def mooy da koy ñëw mu toog nga rassuré ko nekk ah sëñ bi vraiment géey nga sant nag mais nag garaawul daal affaire yi amul benn problème léegi lii mën na arrivé ku nekk affaire yooyu daal rassuré ko wax ji wax ko wax bu neex waaye bu nekk fa naka yooyu da nga foqalee da nga lii da doo def loolu da koy rassurer ndax loolu mën na arrivé ku nekk du dëgg léegi nag bu fekkee bu fekkee da nga da nga def cinq da nga def cinq léegi dama lay wax lu tax ñu koy def nii ndax yoolu maanaam la lu tax lu tax lu tax ñu koy dóor fii ci gannaaw lu tax ñu koy dóor ci entre les deux omoplates loogu teen ñu koy def c'est duñ ko bëgg a mu mu mu sëqat day créer un mouvement de tout boo xoolee même sa doom wala xale yi bu leen seen yaay rëkkee même bu ñuy jooy di sëqat bu leen ko seetloo bu leen seetloo xale yi même bu fekkee seen yaay daf leen dóor rëkka leen ci gannaaw nii même bu ñuy jooy si biir jooy bi da ngay ñuy sëqat léegi nag dóor bi nga koy dóor fii c'est pour créer un mouvement de tout qui va débloquer expulser le corps étranger à l'extérieur parce que claque yi loolu mooy objectifu claque yi lu tax nga jël boo ko def doo def nii de mais paume de la main ngay jël nii nii ngay jël nga ñëw si entre omoplate yi entre ñaari ñaari yaxu mbagg yi si digg bi noonu nga koy dóor mais nag boo koy dóor da ngay dóor bu baax a baax dóor yooyu nga koy dóor noonu day tax waaye day am envie sëqat noonu bu amee envie sëqat di jéem sëqat rek affaire bi day day dañ bu fekkee da nga def cinq comme par am ñëw na nii ma def nii un deux trois cinq dañul dama koy def compression abdominale damay changer beneen technique bu ma xam ni damay jël sama loxo nii ma ma def ko nii point juste si kaw jumbax bi au-dessus du nombril juste si kaw jumbax bi doo ko teg si kaw jumbax bi de mais si kaw jumbax bi juste mooy boo rombee jumbax bi boo rombee jumbax bi nga koy teg waaye doo ko teg si kaw jumbax bi su ko defee nga def nii sëgal sëgal nga def nii booy def nii bii itam boo koy def nii. loolu yi wax les compressions abdominales tey boo jëlee benn bidon eau de javel bu jeex bidon eau de javel bu jeex nga jël morse këyit wala morceau dara nga saañ ka soo bësee si digg bidon bi lan mooy xew saañ bi day saañ bi day naaw loolu la ñu bëgg a créer fii nag ndax boo boo bësee fii xam nga poumon yaa ngi fii ngelaw li nekkoon fii yëpp day yéeg bu yéegee ba si poumon yi moom mooy expulsé corps étranger bi sous forme de piston mais bu wekkee ne waa ji dafa nekk nit ku obèse mooy nit ñu am yaram yi wala bu fekkee jigéen la bu ëmb moom doo ko defal compression abdominale mais thoracique nga koy defal moom compression thoracique nga koy defal fii nga koy defal mais bu fekkee nit ki nekkul ku ku ku ku jigéen bu ëmb wala bu wala mu nekk euh, ku ku euh, ku rëy noonu soo defee claque yi cinq claque yi deñul mën nga ko defal compression abdominale après bu deñul nga defaat ko cinq claque bu deñul nga defaat ko complice abdominal noonu nga koy jàppoo di ko jàppoo ba mu deñ wala moom mu xëm parce que ku toog lu yàgg nooyewul bu yàggee forcément day xëm su xamee nag boobu da koy tëral su boobaa nga ñëw nga réanimer kër bi su boobaa nga ñëw nga réa nga defal ko massage cardiaque pour cœur bi pour cœur bi pour cœur bi dox te boo xoolee ñun ñoo ngi fàttaliku suñu maam yi daan boo footee dañ lay rëkk bu la rëkkee rek affaire bi dañ boo seetloo boo fotee rek du lay rëkk kenn maam bi day ñëw rek ñëw rëkk la bu la rëkkee rek affaire bi dañ léegi nag boo xoolee tubaab bi léegi daf kër rafetal rek ñëw mu wax moom moom waxul rëkk mais dafa wax claque la wax mais tubaab bi lu wax des claques vigoureuses vigoureuse mooy yu saf la ñu wax moom ngay dóor pour pour mën pour mën a efficace loolu yu obstruction des voies aériennes léegi bu dee mag en général bu dee mag obstruction bi li ko indi lépp mooy buy lekk mais bu dee xale xay objet yi muy fooye ñoom ñoo koy fatt par exemple xale buy ràmb bu fekkee ay bii xale di xale yi di di di taabe wala mu jël xaalis man na lekk war na mu mu fat ko mais bu dee mag moom en général si lekk la koy jële si lekk la koy jële wala mu am nag yeneen forme de kii yu peut-être maladie wala yu mel noonu mais en tout li gën a courant mooy bu dee mag si lekk la koy faral di jële bu dee xale si si si yi muy fo fo la koy jële bokk euh, boo ko deful lool rek ni xa boobu su bëggee xaar sapeur-pompier yi fot mais fot nag dafa am ñaari façon dafa am li wax obstruction total ak obstruction partielle bu fekkee waa ji fot mënul wax mënul wax te mënul nooyi kooku da xam ne obstruction total la su boobaa si nga koy defal lii mais bu fekkee waa ji mën na wax xamal ni euh, objet bi fattul yoon bépp genn wàllu yoon bi rek la fatt bàyyi genn wàllu yoon bi su boobaa bu ko defal dara yóbbu ko hôpital noonu rek ndax boo koy boo koy defaree lii objet bi mën na déplacé wu nag fattul yoon yépp nag ndax comprendre ngeen mais nag foog ngeen xam nag signe yi waa ji bu fekkee mënul wax mënul wax mënul def daal dafa ŋàng rek nii mënul wax nga ne ko yow lan la mu ŋàng rek nga ne ko la mu ŋaang rek nga xam ne kii mënul wax dafa fa total su booba bul xaar neel ma sàmba demal woo sapeur pompier mais yow nekk sa parce que su kooku moom su bëggee xaar sapeur pompier yi ah ma xamee ne géyéen la moom naa daw bu baax ma ñëw nag xam naa ni quoi dégg nga pour man ko rassurer après du dëgg voilà donc euh, yow yaay ñëw nga defal ko loolu en tant que pour pompier ñëw mais bu fekkee waaye dafa fot bu noppi di wax moom bu ko defal loolu wax bàyyi ko rek mu yóbbu ko noonu ndax yoon bi du lépp moo fott mais genn wàll gi kiiwul bon ñu gaaw kon ñu ñëw si le les hémorragies yi mooy waa buy ñàkk deret ñëpp xam ne ni doomu aadama euh, juróom benn ba juróom litre deret la am doomu aadama juróom benn litre ba juróom-ñaari litre deret la am moom la doomu aadama am te euh, li nga xam yi moom mooy doxal deret ji mooy xol bi la ak li ñuy wax les vaisseaux mooy artère veine capillaire xol bi mooy pompe bi buy pompe der bi buy dem day jaar ci artères yi ak pression bu ñëwee ba ci capillaires yi capillaires yi ñoom ñoo koy jël distribuer ko ci ah, kër ci ci yaram yëpp su paree retour bi mu jël ci veine yi mu dem des fois di ngeen gis waa ji ñu jam ko deret ñu jam ko paaka mu dee léegi waa ji ñëw ñu jam ko paaka mu toog ba kii gaawul dee li koy def mooy façon fan ko jame la bu fekkee duñ ko jam ci artère bi foofu dere dere bi dafa jóge ci xol bi di dem foofu day am pression boo yéexee rek dere bépp mooy dem bu fekkee ne du nga ko jam si veine yi euh, foofu dere ji amul pression day day day waaw nankar di dem su ko defee perte de bi du bare mais lu si mënta doon bu fekkee fu leen fekk waa ji muy perte moom ñu ñu ñu ñu mu def accident di ñàkk deret wala ñu jam ko paaka mu ñàkk deret li ngay jëkk def mooy arrêté saignement bi noo koy arrêté mooy. da ngay ñëw nga fi lox fi fi nàcc nga teg sa loxo su arrêté nga wax leen jox leen ma benn ñu jox la pansement nga tekk si après nga takk nga takk ko su kiiwul nga nga defaraat beneen takk bu fekkee nag def nga compression directe boobu mooy pansement boobu defar nga ko der ji continuer di arrêté nga door a def garu garu mooy moom par la force de arrêté mooy kat euh, fii mooy nàcc boo ko takkee fii dere bi du mënti du ti ñëw mais garo si ñaari parti de membre rek lañ koy def mooy bras ak ak cuisse ñëw rapidement ji taxaw ah waaw tànk voilà si tànk ak si pooj kaay garo fii rek nga ko mën def wala nga def ko fii mais farine foo ko mënti def du efficace ndax bu dee fii ñaari yax la te te te kii bi mi day boo ko boo ko takkee itam du tee daraja day continuer bu dee fii itam même chose dafa am tibia am péroné donc fii nga ko mën takk wala nga takk fii mais toujours c'est entre la plaie et le cœur garrot aussi boo ko xasee takk amul desserré waa ji naan dafa serré amatul desserré te da nga war marqué heure bi nga ko heure bi nga ko marqué heure bi nga ko heure bi nga ko takkee da nga ko war marqué te encore nga bàyyi ko mu feeñ boo eggee hôpital ñu bind si nga jël benn kayit nga bind si ni garo bi takk loxo bi maa ngi takk dix heures wala maa ngi takk onze heures mooy heure bi nga xam ne si nga takk garo bi bëggoon nañ développé kat mais daf mel ne heure bi des na ba léegi yow la hmm? trois minutes donc pour hémorragie yi noonu la koy defee du nga koy def entre la la la le bras la koy def ak ak la cuisse foofu rek lan lan lan ko mën def donc nit ki buy bu bu ñàkkee deret am accident boo ñëwee arrêté ko nga def sa loxo bu arrêté wul arrêté nga jël pansement nga takk ko bu mu dëgër bu fekkee nag waa ji duñ takkal dagg loxo bi kooku forcément kooku garu nga koy defal wala am na am am na hémorragie yu nga xam ne bu fekkee da nga def da nga ñëw nga takk ko affaire bi def compression direct affaire bi arrêté wul foofu tu es obligé nga def ko garrot mën nga nga toog léegi ensuite. Euh, am na lu ñuy wax inconscience waa ji bu ñàkkee sagoom bu xamee bokk comme ni ngeen ko waxee yéen perte de connaissance kii il est conscient ndax su ma ko woowee daf may wuyu mais waa ji bu defee accident wala mu feebar mu jékki-jékki ñu ni dafa dafa xëm daal antul sagoom bu leen ko tëral njaxaanaay dee leen ko tëral wet nga téenal ko tëral ko wet ndax boo ko tëralee njaxaanaay laa muñ bu ndaw bi day wàcc te su wàccee day empêcher ngelaw li fu mu waroon jaar bu mu noyyi donc nit ki bu fekkee dafa feebar ba yàgg mu xam antul sagoom boo ko wooyu dul wuyu nga ne ko eh boo yow noo du dul wuyu nga ne ko nga wax ak moom wuyuwu la nga xam ne ki antul sagoom xam na da koy tëral côté moom la wax position latérale de sécurité bon na bu ko temps mayoon sax dinaa leen démontrer nan lañ koy nan lañ nan lañ nan lañuy defee position latérale de sécurité mais da koy tëral côté ba noppi nga téenal ko mais soo ko tere soo ko jaxaana soo ko terelee njaxaanaay di ko yóbbu hôpital wala nga bàyyi ko foofu laamuñ bi ndaw bi day wàcc laam laamuñ bi day laamuñ bi laamuñ bi day wàcc te su wàccee day day empêcher fi ngelaw li waroon jaar mooy obstruction des voies aériennes par la chute de la langue en arrière donc une victime inconsciente qui respire doit être mise en position latérale de sécurité pour éviter l'obstruction des voies aériennes par la chute de la langue en arrière